mbokki Vox TV ñeen nag ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu ngi fii nag ci bunu stade stade bi nga xamante ne ni fii la jogante bu mag di amee dox ci diggante Modou Lo ak Balla loo yi dañu lool lool ay at nekk nag di ko daal di xëccu di yoon nañ fi dik ñu ko laay demoon sax ba joxe avance waaye kii di Gaston mi ngi lëkkaloog Aziz Ndiaye moom moo daal di jël raw gàddu gi ba tey jii fii foo sànni mu daal di tàkk ci buntu stade bi nga xamante ne fii la jogante bi di amee supporters na mais kenn mënagul dugg ci biir stade bi kenn tijjiwu ko ñenn ñi nag di ñaawlu li nga xamante ne moom la ñuy dund fii waaye ñi ci des ñoom euh, jaxal na leen ko malgré que naaj bi tàng na ñoom tax fas yéene nañ taxaw fii ba bu ñu tijjee bunt yi pour dugg ci biir stade bi dañuy dem ànd ak ñoom rek ci biir rang bi ku ci nekk jox sa xalaat ci combat Modou Lo Balla Gaye bi nga xamante ne benn la ci atum 19 2019 bi nga xamante ne ci la ñu nekk moom moo ko fas yéene maak acca ñu dem am yaakaar ni tey di ngeen amaat ndam fii si kattanu yàlla 2-0 yi gaaw yow tam Balla Gaye nga àndal. non Modou Lo na na métti ci bi rek ca bañ a métti ci Modou Lo ñun lu muy métti na métti ca ñun ca bañ a métti ci Modou Lo. xam nga nag dinañ Balla sunu mbër amul tiit amul tiit moo tax ñëw heure bi bu doon tiit dañuy biddanti fajar lan la wuñu bopp ba a ndox moom amatul ci. non Balla Gaye mosu ndox la Balla bu ne nii dañuy as. non Balla Gaye na ñaari yoon te yéen ñi ma woo leen non loolu ñun ñun ay si meeku yaa ma gën a xam. waaye xam nga man bala di daan amul benn problème ñun dañ leen di daan ñun moom bala moom deux zéro la marqué deux zéro. deux zéro daal ngeen bëgg a yóbbu. daal lañ gis quoi deux zéro. non bàyyi sabotage yi ah non violence nag non ndox du bàyyi yoonam. maanaam ah. fa woon. 2-0 du yàgg 5 minutes du ko passé. 5 minutes xaw na bari de endurance la de. ma ne il faut nga taxaw pour mun ko bëri. ma ne du yàgg ndox du bàyyi yoonam moom si boppam xam ne ne waa ji du moromam parce que ku nekk rek da ngay am ku mën gis nga amoon mu mënee baal di ko dër ko deux fois noonu lay demee. mais confiance bu bëri tamit ngeen foog ne du leen. andi ñun moom moo am problème bu dafa yenu combat bi parce que yaakaar na ne ah kii dafa jeexal. kii kii dafa ñëwaat ak jeunesse maanaam dafa xam làmb parce que ya làmb yi muy bëree ça dépend si ki ngay dajel mais gis nga boo xoolee sama waa ji nga gis ne dara nekkatu si moom bu koy dóor muy daanu. daqaadu saf safaat. 1 euh, 1 euh, dafa leer nañ. Modou Lo 100 pour cent laa la wax. maa la wax ni billahi mun loo rek moo nu jaral lu nekk te daqaadu saf safa dinañ ko duma dinañ ko daan incha allahu rabbi gis nañ leen démb daal ngeen mel ne kuy kuy kuy sabar daal yéen waa parcelle waaw mais dañuy feet suñu teel na de tey buñu leen dóoree mbaa du ngeen ruus suñu la tàmbali te dañ koy confirmer rek mu jeex incha allah waaw ci kanam wala boog yow ku fi andi nii yow man waa Pikine laay supporté waaye laa ma ji moom dama xamal ku ci daanu ku ne yàqu nga ki daanu lu la yàq daanu ay mbër yaa ngi ñëw ay Ama Baldé Boy xale yu ndaw am doole di ñëw. mais yow tey koo supporté nii war tamit nag parfum bi tamit nag déedéet déedéet nag déedéet parfum bi tamit pour lan la tamit. man Boy Niang moom yónni Boy Niang. Boy Niang moo la mhm. daan rek même Ama Baldé sax damaa yónni ki daan ak ki daan yëpp moom moom kenn ki la soxla rek xam ngeen ko. boo ñaa kenn kilo soxla Ama Baldé kenn kilo soxla ñoom ñaar ñoo ma yónni. yàgg wala wala lan nga gis yow ci combat non gëmu mu gaaw nag yii gëmu ma ko nag combat bi du mën a gaaw. dafa war a neex combat bi su ma sañoon dañuy xeex vingt minutes bëre vingt minutes. Modou loo dafa màgg mais Balla Gaye dafa jàpp ni Modou Lo la bu ndaw mu koy raamale kon noonu léegi xale màgg na xale boo ko dóoree ñaari yoon yet mu dem ba toll ak yow dootoo ko mën a dóor. loolu nga foog. xoolal sa doom boo ko dóoree dootoo ko mën a dóorati. kon baax na yow yow Modou Lo dafa màgg wala dafa màggee. màggul ginaar kookali la kooku leelam boobu nga xale. yaay nax sa bopp. mais leel na ko judd waale leel moo ko long moo ko lars bu arbitre bi sifflé dina ko woon 2-0 yu gaaw. maa la ko yu gaaw yéen booy da ngeen di yéen siboo leen eh, deux yu gaaw laa la wax lii garaaf la kooku paa la ñooy feetu géejaay géejaay mooy feetu. Balla Gaye 2 moo fi indi 100 pour cent Balla Gaye Balla Gaye daa wàccoog ñun soxna si Balla Gaye 2 soxna si wàccoog naag ñun lu kenn musul def la def. tegale poids alu yëpp daal leen ñoom ñu def coalition di ko wër bu di ko xeex mënuñu ko xeex ah, di ko xeex mu mënuñu ko xeex. ñun duñu wax ak koo xam ne dafa gàddaa xam nga ñun suñu mbër gàtt. est-ce ko woon bi moo ñëwaat nii. mais mais mais ñun ñun mbër ki ñu yor ki xoolal dafa frais te naturellement la yor te ñun koo xam ne président day dopage di dem ak dikk moom ñun waxuñu moom. day dopage. non daal dopage ci la nekk 2012 ba ci ma maa ngi nuyu la ziar bu baax a baax a baax. maa ngi lay delloo ziar. waaw gis nga Balla Gaye pour pour l'instant nii wax jërëjëf fu mu toll nii yaa ngi comprendre mbër mbër mi war di wax ak mbër mi travail bokkuñu yaa man maa tudd Ndëri Ndiaye Ndëri bu Sakkees ci kattanul yàlla dinañ daje paas seen mbaa ñu daje dinañ daje ci kattanul yàlla Balla Gaye dina o duma dina ko daan mais soxna si yow nga ñëw nii tam pour supporter rek waaw damaa ñëw pour supporter man Modou Lo Modou Lo moo lay doon buñ la dóoree nii tey non ndam day dem parcelle. yow dafa war a dem. non damaa xam ni Modou Lo dafa mën a bëre macha allah te xale la macha allah daal. mbokk yi mi ngi noonu ñu ngi fii ci buntu stade stade bi nga xamante ne nag fii la jongante bu mag bi di amee dox ci diggante Balla Gaye ak euh, Modou Lo tribune couverte nag lañ daal di jógee ñu ngi fii nag nga xamante ne mooy découverte découverte nag gis ngeen ne fan yi fii la ñu ëppe waa ji yow da nga ñëw euh, fas yéene supporté kan mais man Modou moom moo ma indi ay doomu parcelle lañ soit amu ñu tegoon 2010 te dañ ko war a récupérer teewaat ko 1-1 lay doon de 1-1 rek. 1-1 rek kenn duñ dóor dóoraat. 1-1 lay doon man 2-0 Balla Gaye 2. nii jënd billet. waaw waaw daal taxaw nii fas yéene supporter sa mbër. supporter Balla rek mu daan daan bi comme ni mu daan def rek comme dab moom moom xam na ni moom c'est le meilleur. mais ndekki nga ma. ba suur. ma yaa ngi préparé añ. waaw waaw waaw. nga rek ñu dóor leen bu bu la dóoree xam nga doo mën a lekk da ngeen daal di suur. <laughs> waaw loolu yaakaar am ndam yàgg na ndam la bàyyi nañu ko kër ga ñu. est-ce waa ji waa ji xool ngeen ko. waa xarañ loolu kan Balla ko guy la. guy maanaam yéen a ko fi xasoon de ne biir mi ndox kese wala wala ndax dafa meeri. defaru na mais pareegul daa defaru mais pareegul. ba léegi pareegul. du leer laa lay wax pareegul. li Modou wax rek peg yi comme nafagu deful dara. ñu daje ci biir léegi léegi. yow ku la fi andi. Ah. Modou Lo. kon yéen ñi daal yéen fan club. dóor mu daanu dóor mu ah, daanu dóor mu daanu dóor mu daanu. affaire bi Modou Lo moom Modou Lo moom fu mu toll nii dafa ñëw pour récupérer dara parce que dafa ñàkk ba pare. déggoo ma Modou mosul ñàkk. erreur la woon ko defoon erreur la woon. daf ñu ëppoon doole ñu nekk booy instant liggéey nañ ba tolloog moom dañuy ñëw xoola 1-1 bi par force lay doon. mais mais mais Modou Lo léeg-léeg bi ñëpp nee nañ paa la nag. non paa loolu xoolal boo ko gisee rek da koy xam nekkul lu ñuy wax da koy xool rek xam ko. na. par force te buñ tasawaatee naa la ko wax. par force ah. yow maa lay xaar fii. amul nii. déggoo ma de par force la dañ koy jël. xarañ loo laa bëgg mu may ko ndam ci kattanu yàlla ak mbaaxam ñu Lo mooy daan moom laa faral daa am fit man dégg nga bés bu Modou Lo moo ko yor. dëkk naa ñaari yoon. dëkk nga ñaari yoon na noo xam ne moom buñ la daanee da ngay suur. booba ñuy sangoo suuf te 2-0 2-0 jël revanche ma sa jël revanche ñàkk ko Modou Lo mas Modou Lo mas sa jël revanche ñàkk ko contre Gris Bordeaux dañ doon wax naan dañoo niil bi mu ñëwaatee bien que moo ko daanoon mais bi ñëwaatee dañ koo jéem a joxe revanche dañ koo daan jël bu leer nañ Lac de Guiers premier combat da doon daw bi mu ñëwaatee di joxe revanche dañ koo daan jël bu leer nañ bii mooy troisième revanche Modou Lo. la boor Balla Gaye la Balla avec Paradise waaw ndam rek 2-0 inshallah rabbi waaw 2-0 avec Balla Gaye tout est possible tout est possible. daan rek incha allah. xarañ loola xarañ loola wax na Modou Lo. Modou Lo. ni la Balla Gaye 2. bu fekkee 3 4 la 4 boo ko divisé par 2 2 la Balla Gaye 2 deuxième promoteur moo tëgg combat bi muy Gaston Mbengue Balla Gaye 2 le 13 moom moo ko moom parce que ñëpp xam nañ ni 1 boo ko divisé 1 ak 3. mu jox la kaat nga diviser ko par 2 mu jox la 2 muy Balla Gaye 2 deuxième promoteur 2 0 ci kàttan. mu loolu mu loolu mu loolu mu loolu. maman mais yaa booy yaa booy gis nga ñii wax rek a leen fi dese waa Géejawaay tey dañuy xam ne parcelle lañ ñëw te bu ñu ñoom balaa ñuy ñibbi ñoom dinañ leen daan di leen daan tey Balla Gaye dina daanu ñaari yoon. ñaari yoon dina ko rëppaloo kat abi arbitre bañ mu jóg ñu dóor ko mu daanoo Balla Gaye 2. dama dañ koy daan sama analyse mooy parcelle du fi am dara. mi ngi noonu dañuy wéyandi. non combat du Balla Gaye deux deux zéro dañ koy koy dóor mu bu leer dañ koy bàyyi xaalis bu du dërëm. jëlee bu leer benn Balla da koy daan ñu nga ko mun. 2 0 2 minutes 2 0 Balla Gaye moo mën Modou Lo. mënuñu ci dara dañuy égaliser force mënuñu ci dara. 2 minutes 2 0. match de football la laa foog ne lañ nekk nii football la wala égaliser football. du ma ko égaliser. 1 wax 1. 0 la ñu supporter Balla Gaye 100 pour 100 lañ mais Balla Gaye na xool ni muy songee bu baax na ko xool. mu bañ mu bañ a xew waaji ah. bu xeexee da koy wàcc bu bëre mu daan ko balaa ko man fuuf. war na Serigne Bamba Mbacké ñun ay ay supporter Balla Gaye lañu. Molo bu xeexee ñu duma ko daan ko bu bëree ñu duma ko daan ko ñibbi géejawaay. neel Balla Gaye mystique bu bi na ko ba na ko yemale ci bëre bu dee góor la. mais Modou Lo la ñuy faral di jiñ mystique nag parce que moom mooy sekki moom mooy sekki de sekkat bi. moom mooy li problème bi. affaire euh, de fitis da cee da cee am lambu ji. gis si combat bi moom vraiment nekk na combat bu rëy combat du siècle ñu ñan nag ñoom ñaar ñu bëre que le meilleur mbokk yi ñu ngi noonu nag ñu ngi fii ci tribune découverte fii nga xamante ne nii mooy buntu stade Léopold Sédar Senghor jogante bu mag bi fas yéenee fam ci diggante bale Gaye ak Modou Lô jubu jeexal jugu fa dañu koy daal di toppandi rek uh, fii ak ay waxtu yu néew uh, fi nga xamante ne mooy stade bi ñoom ñaari mbëri dañ daal di sëgg di ñaanal rek ki nga xamante ne moo mën yàlla jox la ndam mi ngi noonu daal supporter yaa ngi noonu fans yaa ngi noonu jël leen